Eh, Pierre, ça va? Ça va, na nga main waaye Pierre maa ngi sant. ba yow bongo man? nga. non Pierre loo may xoolee yow tamit nag dafay bongo man, nii. da ngay di dosa ko pan. yow sa tagal bi. mën na ko yor leget. yow yaa garaaw. Pierre loolu samay daaj la papa nga. dëgg dëgg yaa garaaw caag. waaw booy sa baay dafa am problème. problème ba pare sama benn xarit bi nekk Allemagne mhm. bu mucc ayib. téléphone bu baax marque bu dëgër këj. te man man maa yor ay téléphone sama njaboot war a lekk am lu ma lekk balaa caag ma jaay téléphone bi. du yoon du yoon de. waaye téléphone sa njaboot di xiif comme dama la ko bëgg jaay nag. téléphone moom ban saaru marque la. Euh, marque bi kii la waaye téléphone 306 xaw ma 307. ay lañ leen di. 300. 307 306. te oto. waaw ah. <laughs> non la yor ah, mën naa koo gis. Euh, téléphone concert amna digital amna photo ñu doon de amna amna amna amna amna amna amna radio amna na fan de jël CD de bi day jël clé USB ngani de jël lan de jël clé man na animer tour famille bi coojo amplifié ko ay lecteur DVD non nah, grawul bëgg a ben ah, bi eh? hmm. ni bi yow mom man na la ko wante rek ndax vraiment dama am soxla man na la ko defal 390000 la bi père man déggu lay wax rek nga ni 390000 to père 390000 nga wax ci mom day dem 400 yow la nga yow lo fa yow si man bana <laughs> bana bu yag doom day waxale man da jox ben 5000 francs nga ni mu demee sax parce que dama xaw a yërëm moo tax. Eh, xale xamul lu tax gis rek jàpp ko sàcc rek. non père te ñëw sàcc sax mais ab téléphone simple ngay jaayee lii nii. man duma sàcc de maa am soxla di jaay sama matériel. père teguma la sàcc mais père yow téléphone simple nga may jaay ay trois cent quatre-vingt-dix mille. père yow it. ah simple léegi ni mi yéeg na de nga ni. yaa ko simple lal de léegi wàññi na la. ñaata pour ñu bañ a waxaat léegi joxal trois cent mille. ferme <laughs> lay xool yow sama papa nga. waaw xam naa da nga soxla. waaw cinq sama père nga. waaw mën la tegal cinq muy ma jàpp ci muy dix ten taw. jëlal jëlal jëlal bu la rawee doo gisaat client de jëlal. andi sama téléphone. ah andi andi. mais di ten taw. sama téléphone. père ma lay Yang de. yéen da ngeen defe naa ab sàcc laa bu ci bi di di di di kay kay kay kaay. ma kaay. ñaw. wuy ma. dix mille dix jege na la. moo ci man andi. yi amul amul puce. puce bi yëpp laa la ku la woo wuyu ko. doom de bu ci de bul jéem wuyu ma de xaw ma après ma ko nga amoon. <laughs> voilà jërëjëf. merci. jërëjëf waay booy. eh wuyu ma bi nag taat bi dafa yàqu taat bi du jël charge. nga ne. da nga ut charger universel nga kep ko bam am courant nga dugal ko ci bir eh, na père to jiwul yow mom xol ba mel dix mille rek ko non père do mën a changer quoi den lek lolé way ah ah ah, ah, ah tente bi damaa lew nag tente bi na ma nak tenta wi lew na ma jaajëf fay jaajëf boy boy dugal batterie bi dagal carton man ko man koy rap man koy rap dugal ko ci digënté batterie bi ak coos bi. nga bëss mu dugg nga taal. nu sax buy tak nak day def sa biir yi xamal na tàkk na deng mu dal lay bind 306 moy moy moy moy moy marque bi waaw ah. xam na ne bi de ko la ci wo bu nga wuyu dinañ la wayana wayan liñ ma doon wayan ci piis bobu heureusement ba ma jaayee piis ba man waaw waaw sama xol féex na